tey dafa am bis bu rëy bu ñu sumb ñun waa Touba tuddee ko defaraat yenn yoon yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi di taa euh, ñu ànd ko ak Touba ci kanam parce que membre Touba ci kanam la membre fondateur bokk ci ñi ko sos euh, bokk ci lu bari ci liggéey bi yàlla dogal nag euh, ñu woon ministre Karim Fofana waxoon ko ne ko dañoo bëggoon nga jàpp ci liggéey bi muy sëñ Abib bi xam ne mooy jëwriñ bi ci biir loolu nag ministre Karim Fofana ne def cee bëgg a jàpp parce que xam na ne président de la république Touba daf ko yitteel. ndax euh, ci loolu ngeen di yëngu ci wàllu assainissement ku ne xam na ne président de la république ci assainissement def na ci jëf ju am solo parce que ci wàllu assainissement rek euh, sëñ Bass Abdou Khadre wax na ko léegi. président de la république jëkkati. dix milliards def ko ci Touba ci wàllu assainissement loolu lu am solo la. bi loolu wéyee génnewaat na ci programme mu assainissement bi ci wàllu gi nga xam ne mooy kër yi nga xam ne dañu tuur ci mbedd yi ku na xam ne Touba fépp jàkka la mais mbedd yi ndox yi ñu ciy tuur président de la république jël na programme def ci vingt cinq kilomètres pour mbedd yu ndox yooyu tuuru ci mbedd yi ñu man ko ñu man ko am ay regard yo xamne daf koy yobbu diko ko génn dëkk bi ak euh, li ñuy wax euh, toilette yi ak raxasit yeeg yëpp loolu moko yobbu yóbbu ak nak assainissement bi nga xamne ne ndoxu taw yi moko ko tax a loolu président de la République def ci jéego am solo ku ne xam ne Touba ci walu assainissement li ci président de la République def dafa am solo parce que bi muy ñëw fekk na ñaari étage kep seede la ci parce que bi muy ñëw boobu fekk na day fess del ak ndox ak fenen ak fenen mu def ci ay jéego yu am solo loolu nak euh, mo waral ministre Abdou Karim Fofana jël ay oto yoo xam ne camion joxe ci lu mat euh, dix euh, huit camions yoo xam ne camions yoo xam ne daf koo boole ak gaaswaalam mu liggéey ci diirub liggéey bi pour ñu sëkk taataay joxe it ñaari quatre plan yoo xam ne ñoo war di tibb suuf bi benn di tisaare suuf si joxe ñaari oto yoo xam ne mbedd yi nga xam ne dañoo taa ñaari oto yooyu nañ dem tonn ji tànk ndox moomu tuuri ko ñetti oto ñetti oto yoo xam ne oto ndox la ñetti oto yoo xam pour ndoxu mbedd lay mank lolit le ministre bi def bu ci ne ak carburant kon nak ñu ko ci sante diko ko féliciter di féliciter président de la République ci liggéey yi mu engagé pour Touba lolit euh, yalla dogal na le ministre dam jobit it na ci participation bu am solo mais moom koppar la def nonu lako ko defee daas dam job ami Dame def nako kon day wane ne jëf ju am solo la ñu def parce que ñun ñëpp ay murid lañ sëñ Tuubaa lañ yaakaar kon ñu ngi leen di sant gërëm leen parce que ci jëf jooju ñun suñu engagement mooy jàppale Serigne Touba ci liggéey bi taxawu Serigne Touba kon nag bu ñu gisee liggéey yu mel nii ñu engagé ko dañ leen di sant gërëm leen di féliciter président de la république ndax assainissement bii nga xam ne moo jëm ci wàllu taataayu mbedd yi fii may wax ak yow nii mën naa laa wax ne vingt cinq kilomètres yi dix sept dix huit kilomètres yëpp defar nañ ko kon sept kilomètres moo ci des dañ koy ñaan ñu gën a dolli bi yoo xam ne nit mbedd yi nga xam ne moo dëkk ci dëkk bi mooy mbedd yu mag yi nga xam ne ci tëli bi lañ ne loolu it état Sénégal def na marché yi ba joxe woon ko depuis yàgg na yaakaar nañ ne fan yu néew liggéey boobu tàmbali parce que xam nga tëli lii nga xam ne mooy tëli état rek moo ko sañ a dagg moo ko sañ defar assainissement yooyu loolu moo tax ñoom it état pare na pour defar ko ba nga xam ne avant màggalu lu oto yi danañ mën di gëdd dugg ci dëkk bi ak di génn parce que nag na nga xam ne assainissement chaque année dañ ko war di defaraat ko yaatalaat te dafa am programme ci biir loolu it direction inondation directeur bi wax na ne am na plan directeur bu ñu préparé pour assainissement Touba. loolu lu am solo la tey yaakaar am na partenaires yi ba def appel dof bi pour ñu def euh, dëkk bi ñu gën a xool naka la ñuy def ba fépp foo xam ne euh, assainissement war na fa gën a jaar ñu gën ko taxawu dolli ko ci li Touba ci kanam def. kon nag di féliciter Touba ci kanam seen taxawaay parce que tey Touba ci kanam yëg-yëg bu am solo lañ def pour Touba parce que tey woote bii ñu wootee. nga xam ne woo nañ ñëpp ñun ñëpp yëg nañ ne Touba ci kanam lii mu def dara gënu ko teg ñëpp ci war a dugal seen loxo murid nañ ci dugal seen loxo ñëpp tey gis nañ ne am na sax ñoo xam ne du ñu murid ñu ngi ciy dugal seen loxo ñoom it ñu ngi leen di féliciter di leen sant di leen gërëm di féliciter membre Touba ci kanam yëpp. parce que di dalal xelu nit ñi nag parce que suñu abi bi nga xam ne moo jiite Touba ci kanam nit la koo xam ne mosuñuy réunion Touba ci kanam mu naan ndox moo xam ne Touba ci kanam moo ko jënd. kon loolu na ci nit ñi bàyyi xel dara it Touba ci kanam ventilateur bi sax fuñ tok muy fiñ ñu bureau yi def fa ventilateur yi nga xam ne ñooy uppee bu ko uppé sax bu da nan diir bi fi tok da koy fay. kon ñing koy sante ndax xaalis mo doy war ndax tay lepp lu ñu génnee ci Touba ci kanam balaa génn rek dana ko xol kon nak na nit ñi seen xel dal sëñ abibou nit la ko xam ne mom moom fu ko fekk bayiko fa ñing ngi koy sant di ko gërëm jërëjëf.